mbokk ngir daray Thiénaba TV du la rëcc bësal abone bësal cloche bi ngir lépp nga mën koy am mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla di julli seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu mbokk téléspectateur u Thiénaba TV euh, jiital ci nuyoo bi la xalif général Baye Serigne Assane Seck di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko euh, ci moom la ñuy jaar nuyu xalif généraux yi nekk ci réew mi yëpp nuyu tamit yi nga xam ne ni saa su nekk ñu ngi am mbégte di ànd ak waa Thiénaba TV euh, internautes yi fàttewuñu leen euh, muy waa Thiénaba TV ak waa Ansar euh, TV taxaw fi nag ci programme mu waajal gàmm gàmmu nag ku ko wax sa xel dina dem ci waajal fan ngay def ndox ndax ndox dafa nekk bokk ci gàmm surtout nag gàmm gi nga xam ne moom mooy gàmmu Thiénaba Euh, kon euh, tey ñii ñu taxawal nii euh, société la boo xam ni macha allah muy entreprise DBF di groupe Plastec nekk ca Richard Toll foofu la seen chaise nekk waaye nag ñu am ay branche ay bànqaas yoo xam ni daj na ci réew mi. Euh, benn ci bànqaas bi nga xamee ni muy collaboration bu ñuy def ak waa Canaba di leen gunge euh, ci waajal gàmmu di leen gunge ci gàmmu 143e édition euh, guddik Seydina Mouhamed gi ñu war a def fii ci Canaba ci ndigalal Baye Cheikh Canaba ñu indi fi nag ay réservoir ndox yoo xam ni réservoir yu mucc ayib la xam naa ñun duñu guddal ci wax ci ndax li olof naan tungunu du teew ñuy nataal Euh, ñoom ñi nga xam ni euh, ñoom ñoo euh, ñoom ñoo liggéey réservoir d'eau yooyu ñoom la ñu jàkkaarloo ñu jàkkaarloo kenn ku ñuy wax Ousmane mbay nekk agent commercial moom moo nekk sama càmmiñ waaye seen représentant bi nga xamee ni moom moo nekk fii ci Thiénaba la leen fii mu nekk collaboration bu am solo muy Serigne Thion jóg macha allah moom tam moo nekk sama loxo nijoor Euh, waaye euh, soxna si nga xamee ni macha allah moom la ñu àndal muy Ndey ba Mbodj ak euh, usmaan waa usmaan mbay ak Souleymane gaajo mi nga xam ni moom moo leen indi fii ci Thiénaba ñoom la ñu àndal waaye suñu doom El Hadji Mor Biram moom tam moo taxaw suñu wet moom nga xam ni dina ànd ak papaam rek ci wàllu commercialisation bi ci biir Thiénaba sang bi ñu ngi lay ziar sëñ yaa ngi canaba andil nga ñu ak xéewal mm. xéewal googu brièvement rek nga tënkal ñu euh, nan lañ ko mën a déggi maa ngi ziar maa ngi ziar ñëpp di nuyu waa canaba mm-hmm. ndax boo ñëwee si dëkk da ngay nuyoo ñu mm-hmm. nuyu xalif général bi mm-hmm. di nuyu chef de quartier bi nuy population canaba yëpp réservoir yi ngeen gis Sénégal lañ ko defaree siège bi nekk Richard tool mu nekk réservoir yi am te njariñ li mu amal askan bi maanaam ñu ngi soog a ñëw Canaba waaye avant ñuy ñëw Canaba dem nañ si yeneen bërëb moo tax ñu toog ñu ne pourquoi pas Canaba mm-hmm. te gàmm yi am na dañuy demaat si yeneen dëkk bu jogee jógee fii nii mm-hmm. mais si gàmm yi Canaba la ñu njëkkee mm-hmm. ndax importance bu suñu patron am am si Canaba importance bu mu am si cali si calife bi loolu moo tax ñu ñëw fii wan réservoir réservoir yi day def ndox ku ni ku ni ndox nag ni àdduna ndox mooy àdduna ndax mënoo def dara te amoo ndox ngay toog robinet di coupé ngay toog yenn heure ñu lay jox yenn heure yoo ni da nga war a taal pression bi dina ñëw ak du ñëw loolu moo fa war a jeex da nga war a am ndox tout le temps heure vaari na loolu moo ko tax jóg pour ngay am ndox tout le temps dangay jël say appareil monté sa salle de bain ndox day am 24 heures sur 24 as 24 da ngay am ndox sa sa kër ci kaw ndox bi mënul yéeg as 24 suñu réservoir da ngay am ndox sell na c'est hygiénique pare ñu naaj teg fi si naaj bi nii mu nekk nii mën na fi nekk ay at di fukki at 10 ans du yàqu du def dara te c'est hygiénique dañ ko certifié dañu certifié suñu suñu suñu produit bi dañ ko certifié ISO produit la ba xam ne dañ ko certifié ISO dafa sell set dañ koy recommandé maanaam mën nga si def ndox di ko naan te du du la wàññi dara waaw macha allah mu nekk lu am solo kon euh, gis ngeen ko xéwal la goo xam ne xéwal gu yaatu la wax na ko ci biir waxam euh, macha allah ab jullit moom euh, cet ànd nag ak julliteem kon dina war a jàpp pour julli dina war a naan dina war a dina war a yooyu yëpp ci la bokk xam naa balaa njaween bee togg sax dina am ndox pour raxas waaye pour prévoir loolu pour ndox bañ a manqué moo tax ñoom ñu indi xéwal gi waaye xéwal gi ci kii la jaar muy El Hadj Thion euh, moom lañ ko wàccee ci loxoom fii ci biir dëkk bi euh, moom mu nekk en collaboration Thion euh, lan nga ñuy wax ci ñi nga xam ne ñoom ñoo indi réservoir yi ak noo leen recevoir salaamaaleykum Ndiame ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di wax ni sa taxawaay am na solo trop ci gàmmu Thiénaba parce que bari na tey kuy ñëw gàmmu Thiénaba Euh, ci seeni publicité tax na nit ñi di xam ka fan mooy Thiénaba ba tey mën na moo xam ni soxna Daba directeur bi muy gis pi bu Thiénaba ak gàmm gi ci la ma woo comme suma goro la mu waxtaan ak man dafa bëgg a ñëw Thiénaba pour indi fi produit ma ni ko loolu nag vraiment dinaa ci kontaan bu baax a baax a baax parce que gis naa ni produit yi muy jaay bon yàgg nañ ko utiliser ci Sénégal yëpp mais amuñu woon chance pour mu ñëw Thiénaba tey nii mu ñëwee Thiénaba waaye yàllaa ngi dogal bi ñu waxtaanee ak Baye Serigne Thiénaba waxtaan ak chef du village vraiment ñu rafetlu ko lool ba tax ñu indi ko mi ngi fi ay citerne 500 litres la ak 1000 mais li ci ëpp solo mooy du caagin na def ndox rek jëfandikoo mais daf lay dimbali ci yenn coono wàññil la. jafe-jafe yu bari ci wàllu ndox ndax soo ko amee tey si kër fi mu toll dafay daf lay dimbali bu baax a baax ci wàllu ngay am ndox 24 sur 24 mais ndax dafa am benn appareil bu nga xam ni incha allah bu yi pare jàllee képp ku nga xam ni amoon nga ko soo ñëwee ci ñun dinañ ànd ak yow dem ci marché bi jënd appareil yooyu jàppale la nga jënd ko ñu ñëw jàppale la ci montage bi ba nga xam ni euh, di nga xam exact réservoir bi li muy jariñ dina tax ngay am ndox guddi ak bëccëg te dootoo sonn dootoo duy ndox di yéegal ak a wàccee ak dugg ak a génn da ngay toog fa nga toog rek boo bee sa sas mu xelli soo bee sa robinet mu xelli te loolu rek la ñuy la ñu la ñu soxla ci réservoir yi te mën na ko kon ñi ngi woo ñëpp fu waay mën a nekk moo xam Thiénaba ay environnement nañ ñëw jéem a jël produit bi ñu yóbbu ko ci seen kër yi ñu jàppale leen installé leen ko ba ñu xam impact dëgg-dëgg kon njàmme lii rek mooy yëf yi ñu ngi gërëm tamit directeur Daba vraiment ci taxawaayam ci Thiénaba ndax li waxoon dañu woon bu ndikkee nañ jaar ci Baye Serigne Thiénaba bañ demee jaar nañ foo jox ko kàddu Daba mu ñaanal ko sant ko gërëm ko loolu rek dafa doyoon sëkk sax bu fekkoon dañ ni dafay yem kon alhamdulilahi rabil alamin waxuma laa nag bu ci xéewal dolli ko day gën a neex rek kon ñu ngi gërëm ñëpp tey sant ñëpp di gërëm équipe bi mu fi yabal vraiment ci suba ba léegi ñu ngi fi ay xale yu baax lañu ñu neex a waxal yu neex a àndal euh, mooy Birame Diop mii di suma doom incha allah à partir d'aujourd'hui képp ku nga xam ne soxla na ko soo ko wooyee ci numéro téléphone am di nga ko jot dina la wax produit yi li muy jar ak li ñu koy jaayee ak nu ñu koy jaayee. ak fu ñu ah, koy numéro bi ñu fàttali ñu numéro bi. numéro yi ma bëgg a mën nga ma woo ci 77 457 63 61 ma baamtuwaat ko 77. 457 63 61. Mor Biram Diop euh, junior mooy moor Biram bu ndaw di doom ci El Hadji Thion euh, moom ngay woote 77 457 63 61 wala nga woo ci numéro papam euh, muy El Hadji Thion Diop 77 572 49 57 bu dee nag commande bu mag ngay def bu jóge ci usine ba waxoon naa leen ko 78 316 19 86 wala 78 607 di nga jot entreprise DBF groupe Plastec Euh, nekk foofu ci Richard Toll quantité boo bëgg ñoom am nañ ko di jaajëfal euh, téléspectateur ak internet bi nga xamee ni euh, macha allah mu ngi ñuy seetaan saa su nekk El pap Pape Abdoulaye Mboup nga jige ma tuuti rek. fekkee muccul fekkee muccul. Pape loo wax ci lii. waaw li ma ciy wax nga baal ma. bala nga xam fi ma jëm. Mhm. man dama doon benn benn question yaa ko moom. waaw jàmme ci wàllu ndox ngay liggéey. waaw ci communauté forage bi nga bokk. Mhm. ak ni ndox amee solo. Mhm. mais euh, matériel boo amee solo nii nga xam ne dencukaay ndox la. ñu indi ko teg ko ci loxo Thiénaba en tant que yow ku xam ndox. te yëngu ci forage Thiénaba. lan ngay wax la population ci lii. Euh, li may wax population bi El Hadj Pape mooy ñu daw euh, fexe ut fu ñu réserver ndox damay wax ni gàmmu Thiénaba bi ñuy waaj a dugg. Euh, képp koo xam ni am na kër wala bunt kër bu nekk na xalaat fu mu réserver ndox ndax euh, ndox ñàkkul ñàkk na avant gan ñi ñëw bu gan ñi ñëwee na gën a yokk boo moytuwul ak renfort bu ñu ci mën a def mën naa ñàkk loolu pour tontu sa question bi sincèrement mooy lii mooy solution bi. solution bi ñoom waa DBF ñoom ñoo ko am indi nañ ko Thiénaba en collaboration ak kilifay Thiénaba kon waaxul euh, gaawal. Euh, yàkkamtil nga woote ci numéro yooyu jokkoo ak ñoom fexe am lu mu dee dee kër gu nekk na ci am ñaar bu 1000 litres muy réserve bu mënee am fukk tamit baax na yaakaar naa loolu mooy tontu li Pape Abdoulaye guddik Seydina Mohamed lañ jëm. ndox ñii dañoo ñëw pour jàppale gàmmu gi ci ndox. loo ci waxaat ci beneen côté. laqad qasama Allahu siyaadata fil azal li Ahmad wal ihsaan fil qawli wal amal. محمد رسول الله فلله ما أصدى ولله ما بذل سمال اليتامى والمساكين لم يذل محمد رسول الله مقل البرم قدك قدنا يا رسول الله جنبا غنان إلا الله يسكو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 koy xalifa général moom lañ jox réservoir yi noonu TBF moom moom moo jox réservoir am noonu waaw gis ngeen gis mi ngi noonu nii waaw moom lañ jox réservoir am noonu ndeysaan TBF macha allah ñu réservoir ñëpp ko soxla ñëpp ko bëgg waaw ndax qualité moom saa waay moom si ñun la fekk baax. bu bu sàkku ñaan la. maanaam dina dund lu gàtt gàtt fukki at bu ko ñëwul jëm paaka xotti paaka bu tàng mën na tegu si naaj. naaj